bonjour à tous daal leen ak ci xibaar ci Diaspora News TV ñu doore xibaar yi wax ci procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ñu nar a jeudi prochain ci tribunal buñu sukkandiko ci journal bi dañuy dem ci troisième rapport bu audience bi ginnaaw 2 février ak bu 16 mars dernier njiitu Pastef établir 21 mars Ben certificat médical bu attesté incapacité temporaire de travail ITT euh, document médical bi caché. bi ci turu directeur Samir Simon Boulas enquêteur yi sûreté urbaine yi daal koy convoqué mon médecin généraliste échographiste di xamlé ne euh, moo consulté Ousmane Sonko ci suma assistance bimu hospitalisé won ginnaw euh, événement wu 16 mars dernier ci demande collègue bi directeur Ousmane Cissé présenté wu comme médecin buy traité Ousmane Sonko waaye nak dal di koy weddi journal bi di xamlé ne policier bi euh, di policier di dute ci authenticité wu certificat médical médical bi euh, bu Boulos journal bi tamit ne bi secret médical ndax base établissement hospitalisation bu Sonko ak beneen médecin ñu nemmeeku médecin yi urbaine ñu chargé wu ci hospitalisation bu Ousmane Sonko Sous assistance événement bu 16 mars dernier ñi fa commissaire Bara Sangaré que enquête directeur Samir Simon. Boulos médecin généraliste échographiste xamal enquêteur yi ne Ousmane Sonko depuis 2009 te it consulté le 21 mars passé ci suma assistance ci demande collègue bi directeur Ousmane Cissé directeur Boulos teg ci euh, ne recommandé na Pastef ay examen complémentaire te établir établir ITT manam incapacité temporaire de travail waye nak euh, nangawul précise base de prescription yi buñ sukkandikoo ci journal bi médecin bi euh, dafa évoqué secret médical waaye lu ci mënti am ITT bu 10 jours Ousmane Sonko day risqué provoqué waat beneen renvoi ci procès bi ko lié ak Mame Mbaye audience bi ñu renvoyé ko deux fois 2 février ak 16 mars bi ñu dëgmal ñu nar ko amal jeudi prochain euh, ministre bu tourisme di ko toppee diffamation ak injure publique. ba tey ci xibaar ñu wax ci Mary Teuw Niane ki fi ministre de l'enseignement supérieur mu wax ci li ko waral démission wam muy xamle

demb 27 mars muy Seydou Diallo di coordonnateur départemental PASTEF bu keur Massar raison raison wu convocation nak ken xamako ko mbokk foofu la ñu ak yeen ci xibaar yi bàyyi programme Diaspora News TV jaa ngeen